suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu yelloo ci ñu julli ci moom di dellu di fàttali suñu bopp di leen fàttali taqoo ragal yàlla ak jaamu yàlla ndax nit digalul moroomam lu ëpp solo jaamu yàlla ak ragal yàlla tey suñu xutba ñu ngi ko bëgg a def ci lii nga xam ne loolu moo loolu la ñu dëgmal wala moo yegg si nii muy feetu jeexitu at bi lu jëm ci le vingt quatre baa nga ne le vingt cinq Noël ak fin d'année ak lu demee ci loola suñu borom subhaanahu wa taala day wax ci aaya bii ma ubbee mu ne ee yéen ñi gëm yàlla mu ne bu leen jël yahuud yi ak nasaraan yi jàppe leen ay péete bu leen leen def seeni péete bu leen leen def seeni wëllëre mu ne ñoom ñooy ay péete seen ñoom seen diggante ñooy ay farandoo mën nañoo jàppante yu soppe jàppante yu wëllëre mu ne wa man yatawallahu minkum képp ku féete woog ñoom képp ku leen def bàyyi fi jullit yi def leen ay féet ay péete yàlla nee na fa innahu minkum nee na kooka ci ñoom la bokk yàlla ne farale farale naa ko ci ñoom wal iyaadu billah aaya bi ci topp suñu borom dellu ne ee yéen ñi gëm yàlla nee na bu leen ut ay soppe ay kóllëre ci kuréel yu bokkul ak yéen ñi bokkul ak yéen diine mu ne laa yaaluunakum xabaala duñ leen digal lu baax de duñ leen digal ñu la digal rek soo xoolee du nekk sa jàmm ciy nekk su niroog intérêt ci ci départ bi mu gi da ngay gis ne ah, ay rek la leen di jural mu ne wat duuma anittum ñoom kay liñ leen yéene mooy ay coono ki jafe-jafe ki tolof tolof suñu sañoon du ngeen génn ci ndóol waaye ku jóge fee weddi yàlla ne la indil naa la plan bu lay génn ci ndóol ak plan buy tax sa doom yi am njàng mu gën a sell gën a mucc ayib ak indil naa la plan boo xam ne wérgu doom wérgu yaramu say doom yu ndaw yu jigéen ak say doom yu ndaw yu góor indil naa la palan aweniru sa génération say jeune ak say ndaw ak say jigéen hmm. borom bi wàccoo naag ñun nango <clears throat> nee na ana lu ci borom bi teg borom bi ne qad badatil bagdaau min afwahihim mu ne mbañeel gi ñu leen bañ mu ngi feeñ ci seeni làmmi sooy déglu seen discours rek da nga ci dégg ne bëgguñu leen bëggaluñ leen nii ngeen mel bëgguñu li ngeen nekk ci kawam mu ne wa maa tux fii sudurum akbar yàlla ne lañu ñu làq seeni biir dënn yi moo gën a tar lii lii lii lii bara lii lii rëcc di génn ci seen làmmiñ ah borom bi ne qad bayyannaa lakumul aayaat yàlla ne ah man de biralal naa leen aaya man de waxal naa leen kawteef yi waxal na leer naa leen de in kuntum taaqiluun su fekkee ne am ngeen xel su fekkee ne yéen a ngi jariñoo seeni xel yàlla wàccewul ak ñun aha kay leeral nañu lépp <clears throat> yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla dolli lu muy julli ci moom moo ki malaakaam te yàlla fayal ñu ko li mu yelloo ci ci ki yiw te yàlla def ñu bis bu nekk ñu koy gën a sopp di ko gën a fonk di ko gën a roy di gën a taqoo ay sunnaam yonent bi bàyyi lu ñu dara ci xéewal newoon naa bàyyiwuma lenn lu leen mën a jegeel àjjana te leeraluma leen bàyyiwuma leen lenn lu leen mën a faxastal mbaa mu jëme leen ci yoon yoonu safaan mbaa mu leen indil mergu yàlla su lu ne leeral naa leen yonent bi nee na la tattabi'unna sunana man qablikum bis dana am di ngeen topp sunnaay ñi leen jiitu woon xeet yi leen jiitu woon shibran bi shibrin shibr moom mooy nattuwaay nii benn loxo ziraan bi zirain déedéet shibran mooy sebre mooy nii ziraan bi zirain mooy nii dégg nga ne hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu mu ne di ngeen leen topp topp leen a topp ba même suñu duggoon ci paxu mbëtt ngeen dugg fa topp leen ngeen dugg fa fekki leen fa beneen bi mu ne hatta law daxalu juhra dabbin la daxaltumu sahaaba yi ne qul naa ya rasulallah ñu ne ko ay yow mi yàlla yónni al yahudu wan nasaara ñan nga namm ci ñi nga xam ne daañ leen topp jullit ñi daañ leen mujj topp ndax na yahudi ak nasaraan yi nga ci nam mu ne fa man sudul ñoom ñan lay doon ah yonent bi confirmé la ñoom la tigi ba ko yonent bi waxal sahaba yi sahaba yi dunduñu loola sahaba yi gisuñu loola gisuñu ay mandarga yu koy yu koy wone booba lépp a ngi jekk lépp a ngi aw yoon ñëpp yonent bi rek moom lañu teg faar ñëpp moom lañu moom lañu sirwé moom mooy dox ñu dox mu taxaw ñu taxaw mu waaxu ñu waaxu mu sukk ñu sukk moo leen di won yoon waaye mu ne di li mu ci tekki ñoom dégg nañ ci ne mooy xeetu jullit ñi loolaa nga ca kanam kanam saxaaba yi duñ ko fekk waaye ñoo ko jottali ñun tey ba ñu mën koo jàng ci ay ban mu ne di ngeen topp sunna ñi leen jiitu woon lan la namm ci ñi leen jiitu mooy xeet yu leen jiitu woon sunna mooy lan sunna mooy sunna mooy defin sunna mooy doxalin seeni doxalin na mooy seeni waxin seeni toogin seeni jàngin seeni ngëmin seeni feetin nu ñuy ñu ñuy defe seeni feet nu ñuy xumbale seeni feet lenn lu ne rek tey xoolal jullit yi lu gën a bëri laa wax ah du ñëpp lu gën a bëri ñu ngi topp yeneeni xeet dégg nga di di leen roy xeet yi ñu jiitu woon mooy xeet yi ñu jiitu woon ci téere yàlla yi ah nasaraan yi nga xam ne ñoo gën a jege lislaam ñoom la yàlla yabaloon ci ñoom isa ibnu mariam wàcc jox ko téere injiil ah mu indi leen la ko jiitu yonent yàlla Muusa la yàlla wàccee woon ci moom ak tawraat mu mu ñëw ci banu Israël mu jàngal leen ko ak yeneen xeet yu mën a nekk ñoo xam ne ñoo jiitu woon mu ne danañ leen topp tey loolu ñun ñu ngi koy dund ndax lii du kawtéef buy gën a firndeel dolli firnde ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxewul xalaatam waxewul bakkanam waxewul seet ci ay biddéew waaye yàlla borom asamaan ak suuf moo koy soloo moo koy waxloo te moo koy waxal li mu war a wax bon lii mu ngi nii ne dang yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeraloon ñu ko ne luy nekk la mu ngi nekk tey mu ne li doy waar mooy mu ne même suñu duggoon ci paxu mbëtt ñu dugg fekki leen li mu tekki mooy danañu dem ba ñun daanaka du ñu seetantal lu ñuy roy ndax nit mën nañu ne da ngay roy nit ci lu rafet nit am na yàlla may na ko technologie muy tabax ay villa yu rafet ay pale yu rafet indi kar ay caro marbre indi leneen nga ne ah lii de naa ko jël lii de baax na nga dem fekkam kili këram climatiseur nga jël climatiseur loolu technologie la baax na nga jël fekk ci moom ay montre yu baax nga jël ci ci montre donte montre jullit yee ko inventé waaye nit day dem ba loo xam ne xel doomu aadama waru ko mën a nag lu ñàkk fayda lu bon lu ñaaw lu ne ñu indi ko nit ñi di ko topp tey nit xam nga kay nit ñëw tubéy ju bees jënd tubéy ju bees ñu ne la nga lay set ko mu xotti ko ab jeune mu xotti ko mu mu ŋaang ñu ne jëndal ab ab tubéy mu jënd tubéy ñoo ko demal def ko ci ci xaw ma lan ci ay ay salte mu am ay taq-taq comme lu salte ñu ne loolu modd la dégg nga nga xam ne ci lu ne lañ leen di toppate waaw li ñuy topp sax nit mun la ko sax waxal suñuy jigéen yàlla ñu yàlla jégal seeni jigéen la ñuy topp ci ñoom lañuy ñuy jéem a niru kee nit ku tubaab ku jigéen ju weex tàll tubaab di def maquillage ne léegi mu xonqal ay tuñam ndax xonqaay bu xaw a niroog lu weex li tuuti mu xaw ko def lu woyof nit ku ñuul moom it mu ñëw mu def lu xonq waaw moom it mu def comme ni tubaab ni ma gis tubaab bi def rek ah parce que même bu mu nekkee bébé lu gën a bëri dañ naan ko jëndal leen ko doomu tubaab jëndal ko doomu tubaab muy xool ci doomu tubaab di kontaan di xool doomu tubaab di kontaan ana sama doom ji ana sama doom ji di ko di ko te su màggee lan lay nekk day bëgg a nekk comme doomu tubaab tuñu doomu tubaab ni tuñu doomu tubaab mel noonu lay bëgg a peinture tuñam nan la bëgg karawam mel comme karaw doomu tubaab waaw la bëgg comme coolinu doomu tubaab sipp su gàtt ak yeneen yu ñaaw ak yeneen yeneen te fekk ka ko way jur ya ko doon def ñu ngi ko jàppee woon ay caaxaan la ak ay fo mbokk yi dund gi caaxaan ak foo amu fi képp ku amul plan ci sa dund booy dunde xamal ne yaa ngi yaa ngi bokk ci plan wu jàmbur képp ku amul programme booy doxe nga xalaat man fan laa bëgg a dem ak yan yoon moo fa war a jaar ak lan moo jaadu ci man ak lan laa jomb ne lii duma ko def amolo sa bop programme te yaangi ngi teen di dox xamal ne yaangi dox ci programme jàmm amna na ku lay liggéeyloo am na ku lay jariñloo jariñoo am na ku lay sànq am ku lay fowe daanaka loolu moo fi nek te suñu yonent sallallahu alayhi wasallam yàlla leral ko xay yeb lo xamne amul kenn ci dom ci suuf du domo aadama du jinn du malaaka kenn xamuko borom bi wax yu ko ko xamal ko ko mu xamal ñu ko bon mu waxal ñun deug sërëx yi waxal ñu pax yi moytu leen fi moytu leen fe moytu leen li lépp waaye teewul lu gën a bëri ci nit ñi nekk di gëmmantu rek nekk di nelaw tey dafa mel ni lu gën a bëri ci réewu jullit ñi lan la ñuy dund mooy li ñuy wax culture occidentale mooy caaday tubaab yi caaday tubaab yi xoolal yonent bi sallallahu alayhi lan moo tax mu tudd fi alxuraan tam tudd yahud ak nasaraan du yahud ak nasaraan rek la concerné mu ngi concerné képp ku dul jullit al al al kuffaar attashaabuh bil kuffar moy niru niru lok ñu dul jullit dafa araam ci julit waye lutax ñu tuddé yahud ak ak nasara ñun mo ñom ñoñu concerné ñun ndax ñoñu gëna gën ñun ñom lañuy dëkkal ñom lañu dëkkal ñeneen ñu jitu ñu ñoña ñun ñu sax seen histoire motax ñuy wax ñoña tay xolal culture occidentale bi ñu koy tuddé du civilisation judéo-chrétienne judéo-chrétienne judéo moy judaïsme moy yahudi chrétien mooy ñeneen ña ca mooy nasaraan yi bon ci loola daanaka lañu ñu tëral suñuy mbir yu bari te loola jaaduwut te loola mooy li ñu alxuraan di tere jullit ñun dañoo manquelewul dara ñun suñu lépp a mat ndax yàlla boroom asamaan ak suuf moom mi nga xam ne mooy programme moo ñu programme li gën ci diine yi mu indil ñu lu gën ci caada yi mu indil ñu lu gën ci jikko yi mu indil lu gën ci jëflante lépp mu jàngale ko sang bi sang bi jottali ñu ko bon lan moo ñu manqué du wolof ñooy wax ne xamatuma sax nuñ koy waxee ñu nekku ku ñëpp reer nga fande seen kër a ayewul du dëkk ñun ñëpp a war a fande ku fande dafa war a ñëw reer si si ñun wàllu yaan si waaye ñun waruñoo reer yi kër kenn ndax yonent bi salaam daf ñoo jox li gën a mat gën a jub gën a baax yonent bi mbokk yi benn bis mës naa toog mu gis saaba yi xaw ma kan moo dem ci ay tukkeem rek mu for benn benn këyit walla ci yooyu der yooyu ñuy bind boo xam ne ci ci chrétiens yi téere chrétiens yi la jóge euh, comme suñu bible yi rek ci téere chrétiens yi la jóge ñu koy jàng naan ah ñii de seen diin lii la ah wax ji tamit de wax ji nel na nii nel na nii di ko commenté ba Omar ibnul Xataab ñëw jël mbir mi ñëw laaj yonent laaj yonent bi yonent bi dafa mer yonent bi su masaan mer li koy xamee deram day soppeeku nga gis mu xonk yont bi boole njàqare ak tiis ak naqar laajul sax kayit bi lu ci ne waxu leen luñ ci bind néew leen léegi jàng leen ma dégg lu ma koy doy dafa leen ni giñ naa ci sama ki ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci tënkam su Muusaa ak Isaa dekki woon tey sama ginnaaw lañu ñu topp lii ñu bàyyee seen xeet su suñu dekki woon tey lépp dañ koy xotti xotti sànni ñëw toppaat sama ginnaaw te looloo nekk ndax yonent yàlla Isa ah ngéeju woon na loola yàlla may ko ko ba ko ay ay xeetam ñamuwoo kaay leen jaamu yàlla ñu weddi yàlla lu ñu def kii daal nañ ko rey ñu noppalu ñu dem yóbbu ko pour rey ko am ku ci ñoo xam ne ñu ñu daiful imaan ñu néew ngëm yàlla ci ñi ko jege koo xam ne dafa woyof ñu neexal ko mu daal di koy yoole mu daal di koy jébbal gaay ñu jàpp ko ñuy wax kooku mu ngi tudd juda juda boobu daal di koy jébbale nañ ko jàpp mu nax ko ba ñu jàpp bañ ko jàppee yóbbu ko ñu ne nañ koy pendre borom bi borom xam ne nee nañu borom bi dafa jël Isa jox ko jëmmu yuuda boobu yoole Isa ñu jox ko jëmmu Isa mu tax mu mel comme Isa ñu jàpp ko di ko diri mu naan woyu du man woyu du man ñu nax gis nga de kii moo doon wooteeg yonent mu ngi nii di jooy fekk Juda mooy jooy léegi nag nu borom bi def ak Isa borom bi ne ko yow sa mission suspendre nañ ko fii comme ni la gaa yi def borom bi yéege ko yóbbu ko fa moom moo tax gaa yi ba tey ñu ngi gëm ne kañu daaj sa kaw croix xamu nuñ ko daaje nii la wala nii la nuñ ko mën a daaje ñoom ñu ngi gëm ne ba tey kooku isaa la waaye ñun suñu pas-pas mooy lu yàlla wax looloo am su jafee gëm ak su soree xel ak su jegee fii ak li yàlla wax ñun loolu la gëm ñun lépp lu ñu yàlla wax lépp lu ñu suñu yonent wax loolu lañu ñu gëm gën a gëm lu suñu bët yi di gis loolu la ñu gën a gëm lu suñu nopp yi di wax su suñu nopp yi weranteek moom dañuy fenloo suñuy nopp gëm li yonent yàlla bi wax dañuy fenloo suñuy bët topp li yonent yàlla bi wax ne loolooy di dëgg ndax ñoo tey borom xam wax nañ ko bët dana wor borom nopp dana wër borom am na ku naan foofu ab talaata rek mu gis biddéew yu bëri bëccëg waaw su ne ana biddéew dafa dem ñu ne ko ah déet biddéew benn biddéew newu fi woon ñu ne ko déet biddéew ah ñu xam naa ne rek daa am lu daanu sa kaw bopp bi rek moo tax euh, waaw du loolu mu ngi gis ay biddéew te biddéew newu waaw nit it nit it dana toog yaa naan sama nopp yaa ngi forob riir sama nopp yaa ngi forob riir ñu ne ko dara riiru fi de su dee ba ñu gis na ndekk kat feebar moo commencé dugg ci nopp yi ñu ne ko demal feju ji sa nopp yi sa nopp yi waxul dëgg bon ñun loola mooy suñuy mbir dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa boole woon ci sunnaam ak doxalinam ak habitude am depuis bi yàlla waxee lii yonent bi dafa boole ci habitude am jéem a wuute lépp lu muy def jéem cee wuuteeg ñi ñi bo ñi mu bokkulal diine rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la nekkal ñi mu bokkalal diine mooy képp kuy ka kuy kufaar waaye nag comme yahudi ak nasaraan la dëkkaloon ñoom moom lu mu leen déggal rek moom dana dana wuuteeg ñoom moo tax. ba ba julli wàccee ñu julliloo ko muy jublu baytul maqdis am lu mu doon yëg ci xolam waaw mu ngi julli baytul maqdis yahud yi di di di ngunu nguni naana waxoon nañ leen kii day copier rek waaw diinam ji muy tabax nii day defar day copier waaye loola metti woon ko dégg ba borom bi wàcce si moom qad nara taqalluba wajhika fi sama mu ne falan walliyannaka qiblatan tardaaha yàlla wàcce aaya ne jibril demal yóbbu aaya bi mu ne ko man gis naa dégg nga ni ngay wëlbatee sa xar kanam dégg nga euh, di di tàllal loxo yi di ñaan yàlla nag ma defal li gën waaye xam nañu li nga nam xibla bële moo la gënalu léegi nag yàlla dana la defal xib xibla boo xam ne yow di nga ci bég te moo gënal mooy lay gënal mooy gënal yàlla mu ne léegi commencé nga jublu euh, kaaba ga نانا نيو يونتي بي صلى الله عليه وسلم باموي جولي مدينه موك اي موك موكي ا با با اي با واتي دنگ نو جانغالي كو امنا كو فا جوغي ديم تي بنين كارتي مو فك اي نيت دي جولي دنگ تي بنين جاكا مو فك غاي دنگ نيو جولي با جابي ووم rek mu ne aaya wàcc na si yonent bi de léegi xibla bi bay baytullahi lharam la mu tari aaya bi noonu ñu jàppe woon moom siggiwuñu dañoo wëlbatiku wëlbatiku tourne tourne rek ba jubluwaat xam ne jullit ñi booba gis nga amul taaxir lu amul leneen booba amul xaar léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo xoolee ay ci ay xadiisam mu bëree xaalibul yahuda wa nasara wuute leen ak yahud yeeg nasaraan yi ñu laal ci yenn tomb rek bokk na ci yonant bi dafa jàngal jullit ñi ne jullit bu góor dafa war mu ne dee leen mu ne wuute leen ak yahud nasaraan dee leen jëm seeni mustaas ngeen bàyyi seeni sikkin waaw mu ne dee leen wàññi seen mustaas mu bañ a gudd lool ba pare ngeen muccal seeni sikkin ngeen yoor seeni sikkin loolu dafa bokk ci yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na jàngale na tamit yeneen yoo xam ne ci wuute ak yahud yi ak nasaraan yi bëri na ay xadis yoo xam ne ci loolu la ko ta ci loolu la ko tàmbalee ba mu ñëwee madina daa nit ñi di feetu mu ne leen lu xew fi ñu ne ñun kat lii ay feet la yoo xam ne amoon nañ ko ci aada ñu ko doon feetu dégg nga mu ne yàlla bëgg leen yàlla wuutalal na leen ñaari bis yoo xam ne ñoo gën lii ngeen di taamul seen bopp yëpp muy feetu tabaski ak feetu korite yii mooy feetu jullit su amee ñetteel bu ci yokk mooy am na fu mu wax ne ajjuma seen feet seen bisu feet la dégg bon ñun loolu lañu moom ñun moomuñu moomuñu leneen dégg nga leneen yi bokkuñu ci lépp leneen lu ñuy yootu rek dégg nga noon yi ñooñu ci jéem a boole wala ñun ñooy dem am ni faiblesse boo xam ne faiblesse su ngëm ba dem di roy li yonent bi doon salaam di roy ci ñoo xam ne bokkuñoo ñoom diine loolu la borom bi di wax subhaanahu wa taala mu ngi wax walan tarda anka al yahudu wala nasara hatta tattabia millatahum mu ne xam leen ne yahudi ak nasaraan yi du ñu mës a bég ci yéen bambete ngien top sen diine denga hatta tattabi millatum ngien top sen milla moy sen diine ak sen aada ak sen culture sen lepp mune qul inna hudallahi wal huda mune njub dal moy njubal yalla njubal yalla dal moy njub wala in tabata ahwaahum mune yonte bi bo topon sen banex yoy nga len ci loola di niru niru lok ñom di solo sen ciolin di wax sen waxin di dox sen doxen badama jaaka minal ilm ginaaw li la dikkel ci xam xam joge ci sa borom ما لك من الله من ولي ولا نصير سو داجك يالا ألك دو ام كين كولاي جابالي ها اب اوكا دو ام كين كولاي خيتالي يالا لوتاخ يالا ادريس كو ديريكتومون يورنتي بي واخول خيت بي سو نين لي مو واخ يورنتي بي ديف ني بوغ وون ديم يورنتي بي جوبام لا خاني سو ديفون لولو صاح دو موتش ما سما كينن كودول يورنتي بي يالا نيو يالا ا موتشال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفورا رحيما استغفروه